bu la kaso ñëw bi mu ñëwee dafa dafa dafa dafa fàtte boppam boo xoolee li muy wax yëpp moom tuddul boppam waxi senegal rek lay wax nan lañuy ñuy fexe ba yaakaar gi yaakaar wi askan wi am ci moom ak yaakaar gi président Ousmane Sonko am ci moom yaakaar gi sénégalais yi am ci moom rawatina ndaw ñi mu fexe ba réaliser mën nañ ni discours bi yëpp ci loolu lañ ko mën a tëj parce que moo di nekk na ma Ousmane Sonko ñenn ñi ngi ci ay doute ne am na un peu lu man li ma la mën a wax Ousmane Sonko Basirou la gën a wóolu ci boppam moo tax mu tànn ko te loolu ñun ñi ko jege ñëpp xam nañ ko waaw maanaam nit boo demee ba jël sa taaw tuddee ko ko kooku mbiru politique booleetu leen te Ousmane ku miin waxam yàgg nga dégg muy wax ne lii du mbiru nit mbiru projet la man su may joxe exemple damay jox exemple bi ma gën a jege muy muy islaam islam korog bi fi yonent bi jógee est-ce que islam dafa taxaw dafa continuer di dox projet bi Ousmane ko nekk fi ak mu bañ fee nekk day continuer di dox jomaay boo ko jëlee di doxal même bu ko keneen yoroon yow mi bu ñu la ko dénkoon ak ñi enca ñi lay encadré mbir mi day continuer di dox kon dañuy rassurer sénégalais yi rek ki ni tey képp ku fi ku dégg discours bi bassiru tenir di nga xam ni kii réew mi rek moo tax muy wax loolu moom man moo tax ma ñëw déglu ko sax non Bassirou bu pare pour doxal réew mi yóbbu ko fi ko sénégalais yëpp di xaar mooy li ñëpp bokk ñëpp jot ci li ñëpp bokk ñëpp jot loolu mooy slogan bi te tey ku déglu discours Bassirou xam ne foofu la nekk di wax ni nag élection kenn du ko gagné te voté guñu nañu wàcc sur le terrain dugg ci ruq ruqaan yi dem convaincre sénégalais yi ñu voteel Bassirou Diakhar Diomaye Faye lan moo nekkoon attitude bi nga jàng ci gëtu nga xam ne allié lañ ci coalition Diomaye mais dañoo nekk en l'aise fii ku fi ñëw da ngay nekk en l'aise parce que ñoom ñëpp sénégalais leen boole xam nañ ni tey ay intérêt parti boolee tuñu intérêt idéologie boolee tuñu tey lenn rek moo ñu boole mooy le Sénégal d'abord boo gisee ku mel ni Mimi Touré ak jaar-jaaram bi mu am ak président de la République tey mu mën ko wan ginnaaw ñëw di superviser coalition bi ça signifie que ni Sénégal rek moo nekk ci kanam le Sénégal d'abord loolu lañ ci mën a mu nekk imam loolu ay caaxaan la yoo xam ne jëmul fen jërëjëf jërëjëf mu nekk euh, moom bu génnee tey gëm naa ni képp.